ku ñu ràññee woon lool ci wàllum làmb nekkoon ab promoteur bu mag moom yàgg taxaw mbëri bu baax a baax li koy firndeel di mbooloo bi teewu tey ci bisam bile. samay mag la sama xarit la sama confident la donc moo tax maa ngi lay maa ngi jaale waa Sénégal yëpp jaale famille am jaale waa Louga jaale ñëpp jaale suñu mbokk taalibe murit yëpp jaale monde sportif bi yëpp. fu nekk lañu ñu féete woon féete fa suñuy waajur. suñuy waajur génn nañu àddina wante terewul daf ñu topp di ñu toppatoo di ñu seet di wut lu ñu neex vraiment fete ñu fi waajur war a fete ay doom foo toll baaxam rekk yegg na fa ci lu baax ak ci ngoram ak jëfinam ak dimbali doomu aadama moom mi nag yàgg jàppale bu baax a baax ñi nga xamante ni nii dañuy doog a door ngir rek may leen chance ba nit ñi xam leen fullaam ak daam la ci nekkee ak jomam ba génnee mbër yu bari yu bari tey fii ñi ngi yori kër ñi ngi yori ay ay million ci yàlla ci yàlla ci moom ci moom la ko jaarale. mooy ku ci mel ni Balla gay 2 daa bàyyi ba papa ji dem Màkka mu ñëw ci moom ni ko li na sama nawle mbëri am laa bëgg am mu ne ko lan mu ne ko dama bëgg am kër kër gi mu njëkk am moo ko jëndal 32 millions wital ko oto Balla gay di bëre di fay Balla Gaye 2. mu nekkoon. acteur de développement jege woon loolu ay xaritam rawatina njabootam tax na ba ñoom ñu lee xool bu tooy lañ daal di am. mën nañu ni comme li ñu doon wax rek mooy bibliothèque tey moo dem lu ne def na ko ci réew mi inspiré na tey képp kuy promoteur ginnaaw yàlla moom moo la inspiré nga doon promoteur. yal na ko yàlla xare ajjana di ñaanal Ndeye Marème Wade yal na ko yàlla dooleel yeggaleel ko makkan yal na ko yàlla dooleel. Gaston Mbengue daldi wuy ji boromam ñu denc ko fële ci sëgg ya ca Yoof